ah man de sama gis-gis mooy moom moom xaalisam. Ah, mooy xool fi mu koy def mooy mhm. te man dama am benn habitude dama ni bu du ma mukk critiquer koo xam ni moom a ëpp moom a ëpp njëriñ si suñu société bi parce que dama sim parce que vraiment euh, Sadio Mané jël xaalisam yóbbu ko Bourges. Mhm. moom liggéey xaalisam. Mhm. yóbbu ko Bourges ñu naan ñu koy ñu koy critiquer ñi koy critiquer si lan lañ ko teg. ndax moom d' abord ñun Sénégal sunu club yi amul benn rentabilité c'est-à-dire il faut ñu xam ni aujourd'hui sunu club yi ñoom amuñu mënoo si investir pour am dara c' est très clair cest à ku war a liggéey ci sa xaalis doo ko dugal si club bu Sénégal parce que club Sénégal rentable et deuxièmement bu demee Bourges moom am na ay conseillers c'est que ñëw rek ni duñ ko dugal dafa am ñu ko dugal te ñu koy dugal seen xarañte si dafa nekk si investissement donc nañu bàyyi bourse ñun suñu problème mooy nañu fexe ba loolu mu investir bourse Sénégal mën si gis boppam déjà am na act bu fort bu posé mooy Moussa Konaté amul club jël na ko bu ëllëgee mën na ay joueurs Sénégal di dem bourse comme ni joueurs Sénégal demee Metz ñu ni ñu doon demee Lille mën na bu bourse nekkee première division wala deuxième division mën nañu mën na nekk euh, terrain d'atterrissage pour les jours sénégalais mmh. donc vraiment nañuy maandu si lu nga xam ne xamuñu si lu bëri ndax Sadio Mané fi mu toll nii ñi ko entouré ay borom xam-xam lañu parce que am na lu mu leen fayee bu ñu ko demee ba ñu ko dugal fii dina si dugg. c'est parce des assurances il a eu wax kañ c'est ça.